président Macky Sall ak Ousmane Sonko moomuñu Sénégal moomuñu ko. moom ñu ziar ñep di ni ñep finalement ndox yi moom si am si dara ñu rek pour wax ci juste rek en tant que activiste en tant que membre du mouvement des Dëgg Valeurs fekk ci suñuy euh, confrères waa Yanamar ak suñu sister brave sister ak waa Fouta Tampi yëpp nga xamanteni euh dañoo def lo xamni ñun gis ni.

bu 3 heures jotee ci terrain HLM Grand Yoff bu jàkkaarloo stade Léopold Sédar Senghor ngir wax président Macky Sall fii ci Sénégal duñu fi bëgg mu jox ma ko ma woo ko mu jël ma ne ko man la yaa mbay ñu nuyoonte ma ne ko dama la wax lu ñaaw dama bëgg nga baal ma foofu la suma xarit ko départ ak moom. ak Guy Marius ah, bi ma feebaree di ñu wax téléphone mu ni ma maa ngi ñëw. ñëw suma kër sama waa kër tiit mu romb kër gi dugg sama ak à coucher fekk ma ma tëdd mu toog sama wet ah bon waaw ma jàmbaar xam nga Sénégal dafa am affaire yoo xam ni mooy ci réseaux sociaux yi lay jóge ak nit ñi di wax boo dikkee ñu naan la waaw ku ànd ak président Macky nit ñi da da dañ lay sanctionné léegi xam nga wax boobu wax bu yàqu la président Macky Sall ba mu toogee ba léegi amul benn élection boo xam ni perte na élection bu gars yi dem bañ naan day perte mu dóor leen teg ci suuf parce que am na programme am na lu mu liggéey am na lu baax am na lu baaxul parce que yàlla rek moo moo matal matalul am na xale yi ñu nekk ñu bari amuñu liggéey am na ñoo xam ne fañ nekk mun ñoo faju am na ñoo xam ne bëgg nañu gis seen bopp ci liy xew ñëpp amuñu mais am na lu baax lu mu def nit ki da nga koy nangoo lu baax li mu def ba pare ne lii des na lii mën nañ ko corriger noonu la am réew di demee am na luy xew aussi ci jamono bi suñ toll président Macky Sall ak Ousmane Sonko moomuñu Sénégal moomuñu ko président Macky Sall dañ ko jël ne ko yow yaay président de la république Sénégal demal nga liggéeyal mi ngi def kamt lay kàttanam di def li mu mën nit ki nag mën naa d'accord ci lii kii bañ a d'accord ci lële mais dafa mandat dañ ko ne da ngay Sénégal ba buñ ci boo fa àggee ñu ñu sétat ba xam kan li ñuy jilat pour que mu dem fi mais fii ba 2024 ya ci wara a kon ko su fekkee dafa wara a ba 2024 kenn wër ta toog ne damay tal réew mi jël pouvoir bi par force lool doxalul démocratie parce que li fi xew li 8 mars te ngeen seen bëtt 8 mars ñu na. ñun dañuy juk jakkalok Macky Sall que amul ben parti politique bo xamni mo tax mo nek ci ginaaw kenn. waa Fouta ñoo seen problème Sénégal ñoo am seen problème jug di ko lijjantil seen bopp politicien bu ñëw ndróog ñun ñuy xeex ñu ànd ak yow soo ndróol moom ñu tegal la nee waaw ànd ak nag ku yow ñu ñu ndróog ñooy ànd comme ni ko olof di waxee donc c'est très clair loolu message dafa am solo léegi nag li ma bëggoon ñu xam ko mooy ne ku sa doom bokkoon ca ña dem yow dootoo foyee problème Sénégal ñuy tiitalaate pour taal réew mi kon opposition mën nga ko def mais opposition lan la mooy da ngay ñëw génne programme bu waaj waxee mbay mi nga ne koy ni ngay defee man bu ma fu dikkee nii laay defee mbay mi nii laay defee njàngale mi nii laay defee napp gi bu ko defee Sénégal yi déglu la bu wootee jotee boo gën lee kii fi nekkoon li ngay def ñu jël carte yi fal la loolu mooy jàmm ci jàmm ci la réew mi man a demee mais doo toog di dugal ci problème mu nit ay problème xeet di ci dugal ay problème mu euh, violence ay problème mu saaga di tiitalaate boo tiitalaatee nit ki

bul daw xeex bi jogol et puis di ma nemmeeku di ma nemmeeku bi mu mujj bi ñu bi ñu mujj wax mooy bi ñuy def seen rassemblement opposition bi nekk Bignona bi mu ñibbi sax moo ni ma leen rek laa bëgg vérifier est-ce que yaa ngi jël say garab normal ma ne ko gaan je donne ma parole Sagna mhm. dans la vie réelle ce sont des adversaires irréductibles mhm. euh, du, du, du régime de, de, de Macky Sall et donc ce sont vos adversaires mhm. mais euh, ci sa épreuve bi Euh, dañ nekk da dafa am lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu wane. Mhm. loo xaaroon la. mën naa ko wax parce que su ma jëlee Guy maris dafa am fu ma jaar ak moom su metti ci mooy bi yàlla moomee Ousmane Tanor Dieng mu am lu mu bind ma réagir au premier degré yónnee ko bataaxal en mode bind ko dara message li ma ko bind jaaduwul. da nga koy regretter.